voilà naa la xamal leen moom. giñ naa ko suñu tool su ma doon tóonu murit damay dee. Ah. lii la sama xol dul supporter sama xol ay bon ba ma dee. suñ tubaab sax oh. koo xam ne sax <laughs> billaahi su doon tóonu murit kay. Ah. wàcc naa bu yàgg. Ah. fàtte nan ma.